aousubillahi min saan rajim bisimillahi rahmaani rahim barki borom Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakato mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci fii ci Touba Cincinnati Ohio lan ànd ak waa Sénégal ñëw ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni Serigne Mamour Ibn Cheikh Amadou Mourtala mi ngi koy liggéey ci diaspora bi ñu àndandoog mbooleem taalibe yi nekk ci Amérique ñu fas yéene wan liggéey kër sëriñ Touba gi nga xamante ni ñoo ngi koy def ñu am fi li nga xam ne moom la ñuy wax fondation Cheikh Amadou Bamba North America ginnaaw bu daayira bi liggéeyee kër gi àndandook ñoom bokk ci liggéey bi moo waral ñu ànd ak waa Sénégal pour wal na liggéey Seexul Xadim bi ci njàppale nag ak sëriñ Mamor mi nga xam ne sëriñ Mourtala baayam ba moo ko yoroon liggéey ci liggéey bu am solo ubbi diaspora bi ba képp koo xam ni am nga fi daayira wala nga am fi mbooloo mu lay daje ci ndigalul sëriñ Mourtala ak jéegoom yu yàlla barkeel yooyu moo waral liggéey bu am solo bi kon lii mooy kër Serigne Touba bi ñu jënd ci digg Covid bi jënd ko dajale ko trois cent cinquante mille dollars di deux cent dix million nu jëndale ko Serigne Touba cash bu àndut ak bor nu dem Sénégal àndandoog Serigne Mamor bu Cheikh mu Mourtala mu jibal nu ci xalifa général de Mouride Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg ci wér ñu yóbbul ko kayit yi. kon ñoo ngi xaar sëñ Maam Mor fas yéene ci liggéey yi def su paree mu ñëw fii ñu ànd nag moom indi goro ko muy ndamal lislaam kon liggéey bi moo nekk nii sëriñ Wàkka Mbaay nag di jiital ñi nga xamante ni moo di góor ñi daayira bi daayira bu jigéen bi soxna bu Boussa Cissé yor ko sëriñ Mamadou jiite ndaw yi Papa Gora Samb mi yor kàddu gi di porte parole lu daayira Touba Cincinnati kon loolu lan ànd ak waa euh, Sénégal kon bisimilah ñu àndoo ci biir kon liggéey baa noonu. bismil ilaa iksinil ak daara yàllaawu sarfi baqaa bi li fiika yàllaawu bismil ilaa iksinil ak daara yàllaawu sarfi baqaa bi amru yaa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 jumaa ji nga xamante ni fi lañ fa yéene def ñu fay jullee léegi ci biir jumaa ji buñ demee fee ci biir am na ay euh, wanag yoo xamante ni góor ñi danañ ci mën di jàpp te du bokk fi nga xam ne fa soxna yi nekk fii nii aussi mooy minbar bi nga xam ne buñ ko defee imam bi mën cee tax def ay xutbaak yooyu donc ci travaux lan ne euh, kër gii ginnaaw bi ñu ko jëndee xam nga boo jëndee kër dana am ay defaraat ak liggéey ak ni nga xamante ni église la woon ñu bëgg ko mu méngoo ak lii nga xamante ni moo di juma ah, di ci jaamu yàlla comme ni ko góor yàlla si xamante mu Mourtala doon doxe moo tax théorinam ah, ji di sëriñ Mamor ne na lii nga xam ni moo di juma ci liggéey bi fu ñuy jël kon fii mooy doon jumaa yi fële ci biir bu ñu fa demee gis ngeen ko fu ñuy mën jàppoo la dugg nii ngi nii mën a yéeg nii jaar ci saal bi ci xam ni moo nekk ci kaw ngeen fii fépp nag ay jàppukaay la ay wanag léegi nag ñu mën a yéeg fii ci kaw maa dem ci saal bi nga xam ni fa war a defee cérémonie yi bismillah barki borom Touba ngeen ko nii fii mooy entre entrée principal bi gis nga fii office la bu ñuy liggéey boo xam ne bu sëñ bi ñëwee fii la dañ fee defal office boo xamante ni mën na fee daje ak autorité yeeg ñi bokk di waxtaandaloog ñëpp di salle boo xamante ni gis nga ko nii amaat na beneen salle bu mel noonu fële fii nag mooy entrée bi gis ngeen ko nii bu ngeen duggee nag fii nag ngeen di duggee gis ngeen fii mooy salle bi de conférence bi nga xam ni sunu yi ñu war a liggéey yëpp mën nañ koo defee fii gis nga ko nii fii mooy stage bi nga xam ni bamba dee yi nii am conférence yeeg jàng xasaay di daan luye ay saali jàmbur ñu lay wax heure bii jotul walla heure bi jot na wala ngay am ay problème fii nag dañ fii mën a nekk ba heure bu nu neexee gis nga ni fële ca kaw tribune la boo xamante ni ña fa ne mën nañ faa yéeg day autorité jigéen ñi nekk ci kaw góor ñi nekk ci suuf comme ni ko lislaam bëgge te du am jaxasoo lii mooy kër sëriñ Touba nga xamante ni lii nag cash la ko immigré yi yaakaar sëriñ Touba di ay murit dajale jëndal ko Serigne Touba ca àndut ak bor ci digg Covid bi mooy wax ni sëriñ Touba xamul dëkk bu naqari xol yu nangu la ko yàlla jox te xol yi nangul nañ sëriñ Touba xaadim rasul ñu ciy sant nag sëriñ Mame Mor bi Cheikh Amadou Mourtala ci yokk jéego yi bàyyam indi woon fii nag ay office la waat ci biir nga xam ne sëñ bi bu ñëwee gis ngeen ko nii fii ay saal yu ñuy jàngale alxuraan la ndax boo ne sëñ Touba ni al azhar bi nga xamante ni sëñ Mamadou yëndu ci yëngu ci liggéey fii salle de école la boo xam ne élèves xale yi fi juddoo léegi boo ñaatee fii beneen salle la pour classe fii beneen salle la pour classe fii beneen salle la pour classe fii la sunu doom yi di jànge alxuraan xam seen diine ak seen culture lii lépp nag mu ñu correspondre ak al bi nga xam ni moo nekk ca senegal sëñ Mamour yor ko fii nag am na office bu fi ne office bii ngay séen fii fi ay wanag pour gone yi bu ñu ko bëggee soxla am ay wanag ci travaux la ne fii nag. office sëñ bi mooy nekk fii nga xam ni tey jii sëñ bi mën naa nekk fekk ay ganam bureau lañ koy defar ak taabal def lépp ni mu màngoog jamono ci sànce lan ne léegi bu ko defee bu demee ba war a génn sëñ bi day mën a jóge fii génn nii ñëw nii dugg yéeg ci kaw mën a wax ak mbokki taalibe yëpp amaat nañ ca beneen côté bee beneen bureau boo xam ne conférencier yi. mën nañ faa toog préparer fa nga xam ne bu nit ñi duggee ba ñëpp pare ñu door a génn kilifa yi ñu ñëw toog waxtaan ak mbooloo mi lii daal ci lan toll ci liggéey fi mu toll ni travaux yi egg na ci euh, li nga xamante ni mooy à peu près danañ ci defaat lu mu gàtt gàtt diggante cent cinquante mille dollars jàpp mais cent mille lañ bëgg njëkk tàmbali pour commencer liggéey bi am na mbokki taalibe yu jaayante def ci seen xaalis képp koo xam ni nag bëgg nga cee jaayante Touba Cincinnati boo wootee kii nga xamante ni moo di jëwrin wàkka mbaay dana la paaseel numéro ci suuf dana la ko jox nga bind ko boo wootee ak zelu daayira bi da ci mën a def sa barkeelu donc koy prep ñoo ngi nekk ci liggéey bëgg bu sëñ Mamoor ñëwee incha allah mu ubbi ko donc loolu lañ bëgg soxna Ami Diagne sax nga ne di ñëw nekkoon ci jigéen ñi gën a brave bokkandoo ko moom ci ndigalu soxna bu sa siise di liggéey Doreen Wàkka Mbaay mi nga xam ne moo jiite daayira bi ku ko bëgg mën na koo contacter ci 513 254 99 96 bu fekkee da ngaa nekk Sénégal bëgg cee barkeelu da ngay def double 0 1 513 254 99 95 wala boo woowee ki nga xamante ni numéro am jot nañ ko ne muy soxna Ami Diagne. Euh, mi ngi fi mi ngi nekk double zéro un cinq cent treize six cent trente huit quatre vingt onze quatre vingt cinq quatre vingt onze quatre vingt cinq moom boo nekkee Sénégal da ngay def double zéro un cinq cent treize six cent trente huit quatre vingt onze quatre vingt cinq bii mooy numéro bi nga xamante ni boo ko woowee da nga ci da nga ko jot. mu teg la wala mu jox la numéro bi nga xam ne ci nga mën a barkeeloo ku ci bëgg a def sa liggéey ci liggéey bi lépp nag mbokki taalib yi sees naa ci noo ko dajale fas yéene koo joxe ba lépp sotti waaye képp koo xam ne nag am nga yéene def ci sa alal boo ko joxee ñu dugal ko ci liggéey sëñ tubaa waaye sëñ tubaa du tàllal loxo kenn ngir di la yalwaan wala dañaan déedéet ndax sëñ tubaa ak njabootam danoo man seen bopp fas yéene dënd lii bi ñu ko jëndee ci trois cent cinquante mille dollars waaye nag aw yiw fu ko nit dégg ca war caa mën a taabal sa sa alaat rek daan la ko yëgal ba nga xam ne bokk ci table la xam ni ñun amuñu sañ-sañu téye liggéey sëñ Touba lu dul tasaare ko ba nit ñi xam ko ndax mooy lislaam ni ko sëñ Moutalla wax boo nekkee sëñ Touba mu ni mooy lislaam donc lii la daayira Touba Cincinnati réalisé xam nga ni dëkk bu toll nii nga liggéey fi lu toll nii sa autorité réew war naa mën a xam ne ñi génn kat. porté nañ drapeau Sénégal bokk ci doom yi siggil Sénégal kon ñoo ñu jaadu na nag ñu bàyyi leen xel xool leen di leen mën a yombalal lu baree bari li dem ci seen i liggéey ndegam ñu dëkk fii ñoo nu mën a yaatal may nu ba nu mën a am lii rawatina nag réew yi nga xam ne juddoo nañ fa am fa ay nationalité am fa ay ndey ak i baay ba noppi di yónnee suñu ñàkk mu fay dem boole ko liggéey Sëñ Tuubaa kon na président de la république Macky Sall xam ni ñun dañoo am sunu kilifa goo xamante ni mooy Serigne Mamor donte bi mu jàppee ci université Cheikh Ahmad ba gis nañ ko ci li nga xamante ni reconnaître na diplôme yi reconnaître def ci ay jéego ndax liggéey bi muy def mu génn ci cent vingt élèves yoo xam ni licence en islamique lan am war a mën a communiquer mën a taxaw ci l'islam tontu jàng ko ba am ci seen licence sëñ Mamor war koo joxe le trente bii nu jëm war di jël. université ma du Bamba bi mu juddoo taxaw ci liggéey ci kon ku mel noonu yor njaboot di ko génn di ko liggéey ban egsi fii am fi lii nga xamante ni moo di école sunu doom yi di fi jàng jigéen ak góor ay volonté di ko fi def kon nañ gën a bàyyi xel xam ni moom mi ngi taxaw taxawaayu ambassadeur mi ngi taxaw taxawaayu religion waaye nag ku xam sëriñ Touba ci bi muy génn di liggéey ji boromam ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di liggéey ji rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam war ca façon wa naan asirul mal habrari hina asiro wa zannal hida anni hunaka asiru masir yi ma mal axlaahi lillahi bin nabi wa mali xari laa wa don siru kon xam ngeen nii yàlla fay na ko waaye ba mu nekkee ca Gabon xel mépp nekk ci Touba nga xam ni mu naan hijaaru joomi laa xaw mi zaadatana wal tag fi naa yow ma jàmmi xalxi niiraani ñaanal nit ñi yàlla musal leen yërëm leen fegal leen sawara ak riir ma xam ngeen ni loolu gis ngeen moom sëñ Tuubaa def mu del siwaat naan rajab sa jib waltu kaamin maanaam way tulada tubaliti bi katub naa fi kabun yaana kon xolam a nga ca Touba loolu la ko yàlla fay ba tey ñoo def tuubaa Cincinnati Touba New York Touba Detroit Touba Chicago Touba Washington Touba Atlanta loolu lépp ay immigré liggéey ko yaakaar sëñ Touba tënku ci njàngaleem sëriñ Touba loolu la ñu yàlla defal ñu am ko fii ci dëkk bi kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi képp ku wàcc ci dëkk di Sénégal ci xamoo foo jëm na nga laajte daayira kër sëriñ Touba bu dee murit nga wala nga dib Sénégalais. koo ti doon wala nga laaj ci kër maam Alaaji Malick wala nga laaj ci association des sénégalais de Cincinnati ndax am réew boo fa wàccee war ngaa fexe ba xam ña cay say mbokk àndandook ñoom ci jëf ak liggéey ak joxe sa ñaq ba ëllëg ci sibir lépp loo xam ni daal na la sa mbokk mën laa taxaw léeg-léeg gis fa ay sénégalais yi fi ñëw liggéey fi son amuñu jot benn daayira duñ joxe ci lenn ba xëy tële wala ñu dee amutunu soi daayira bi taxaw jël leen yóbbu leen kon gor su ne war naa moytu loolu kon loolu daal la ñuy wax ni état Sénégal ne gën a xam ni njabootu sëriñ tubaa gi jaare ko ci Serigne Maam Moom Cheikh Mourtala ñoo ngi liggéey liggéey bu am solo fii ci diaspora bi te boolewuñ kook wax du duñu dugg ci internet di saaga duñu xaste ba noppi di ay citoyen yoo xamante ni yoon nañ suñuy carte électeur xam naka la ñuy bokkee ci réew mi ak lii droit citoyenneté kon na bàyyi xel sunu kilifa gi ñu am gën koo fonk gën koo jàpp ca xam ne exemple la boo xam ne ni doo ko dégg mu wax doo ko dégg mu laaj du publicité waaye dana informer informer mooy liggéey ba mu sotti mu woo ni leen lii laa liggéey lislaam lii laa liggéey ci toolub sëriñ tubaab bi lii laa mott li ci liggéeyub sëriñ Mourtala bi kaay leen ngeen xool nit ñi di ko xool di ko prouver ku mel noonu nag boo ko amee war ngaa xam ne taxaw na taxawaayu ambassadeur taxaw taxawaayu na chef religieux waaye taxawaay na taxawaayu en tant que citoyen kon loolu lan amoon lu ñuy wax ci Sénégal kon soxna Ami Diagne mi ñëw na taxawal fii jigéen ñi nga xam ne ñoo bokk ci daayira bi kon lii daal amoon lu àndandoo ak yéen waa Sénégal daf noo bett nag waaye kon dañ ko gën a yaatal asalaamaaleykum wa rahmatullahi bilasin xaada sahaadatu libirtiraayika min nisaaka yàllaw yaa xulusa bia kalaamu jumlatamaal lam tarlali mutlaqan بالفضل يا الله يا قليل أبي أقل قنوا وجملة ما لم ترللي مطلقا بالفدر يا الله أنت الوكيل لاسين قد اكتفيت بي في الدم والجلب يا الخلق يا الله أنت الوكيل لاسين قد اكتفيت بي في الدفء والجلبية سالخلق يا الله أنت القوي الذي خويتني بردا في سر في سر والجنية سالأمر يا الله أنت المتين الذي قد كنت لي بمنا ولا توجه جئون للمكروه أحيا الله أنت الولي لاسي لا أبتقي بدلا بي ولي كنت بالتعميل يا الله أنت العميد لاسي وجات لي lii ñu bind ci kaw nag God is love Serigne Touba moo bëgg yàlla ba lu tibb fekk ca yàlla ak cofeelam moom la gis liggéey bi mu liggéey le 5 septembre 1895 ci bureau ba ca Ndar Seexul Xadiim jóge fa def ñaari guddi Ndakaaru mu metti nga xamante ni fanaan na ci néeg teg ci tànkam ci robba rabba sëñ Tuubaa mu ko ànd ak jomam ak ngorom sosu kon sëñ Tuubaa nag mada aw din xuttali karaman fii kulli sahrin wa yow min fii ka yàllaaw